Oh, dëgg dëgg dina ci baax soxna mi mu baax mile te nga bàyyi ma téel a wuri si mbay waru téel dara de lépp dina la ko war a mbay dëgg dëgg nit ku baax waaye dëgg dëgg nit ku gore waaye dëgg dëgg nit ku tabe moo waaye nag dëgg-dëgg fii ñëw tey ñëw nañ dëgg-dëgg ci nit ku baax nag mm-hmm. ñëw nañ ci koo xam ne mooy le gardien de la constitution mm-hmm. te loolu nag dëgg-dëgg dafa solo mbay mm-hmm. billaay mën nga mën nga waaw waaw na ngeen def sàll ça va très bien sàll ça jàmm rek kay indilaay jàmm rek kay président maa ngi laa nuyu maa ngi laa fay dëgg-dëgg maa ngi laa kontaane waaw waaye dëgg-dëgg ñëw nañ tey sa kër waaye dëgg-dëgg maa ndox soxna mi mu baax mi li mm-hmm. kooku nag dëgg-dëgg bu ñu tàbbee ci moom mm-hmm. wàcc nañu mm-hmm. dëgg-dëgg mu am ñu ma wax yu foor nag ci yow dëgg la muy muy doomu Kaolack bëgg Kaolack lool dëgg la kooku nag dëgg-dëgg bu ñu ñëwee sa kër gi le sàll ngaari lan toor buuru gédee tàbbi dañu taal dëgg-dëgg loo xam ne l'histoire retiendra mu wax ma mu wax ma dëgg-dëgg fi nga ko fiit ak yi nga ko fal yëpp mbay dëgg la yaa ko njëkk def premier ministre man la waaw dëgg dëgg loolu loolu loolu fàtte xaju fi mbay ki ne ricte tubaab a ko wax ki ne risquerin naa ree dëgg la kooku ne dëgg-dëgg bu ko tubaab waxee dëgg da nga ko féetali waaye dëgg-dëgg maa ngi lay yëgal dara soxna su baax a ngi nii soxna su gore soxna su yiw soxna soo xam ne dëgg-dëgg ni mu bëggee réew mi kenn xam ne mu toll mbay mm, dëgg la ñëw mm. mu toj ko rek jax mbay dëgg waaye mi mii ñëw nañ ci ku baax moom it de ñu mm. bàyyi rek mbay nga waxtaan ak moom mi waaw d'abord maa ngi lay remercier bu baax yow Garmi. maa ndax bu la neexoon ma woo nga ne amoo jot. waaye dama laa woo rek nga ne tubaar fa kàll da ñëw donc je te remercie. Euh, euh, monsieur le président son excellence. je crois que j'ai absolument plus rien à prouver. xam nga ni euh, def naa lu ne ci Sénégal. ndax ñëw naa fi nga fal ma premier ministre. hormis ça juge naa fa nga def ma doxantukaay maanaam may wër di doxantu rek di taxawaalu. dëgg ñu ne déet nga jóge fa. dëgg yóbbu ma ci conseil économique et social. ma toj ko mbay. ma rajax comme ni ko sama. ndaataan fu mu ko doom di. tubaar fa kàlla ñu ne déet ne waay ma toogaat di xaar yàlla dogal nga jël ndaamas lu gàtt li dëkk Thiès. li mënul dara rek mbay. daal di koy jox conseil économique social. dogu doguma ne yàlla bul yàlla dog waaye l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. dëgg dëgg te place boobu nag. c'est toi qu'il faut maa ndax man man j'ai absolument pris plus rien à prouver au Sénégal. j'ai pratiquement fait toutes les institutions. man fi ma jaar yëpp bari na. donc mm. daal dama ñëwoon pour nga xool samay dossier indiwaale la sa suukaru koor. foofu dinaa fa tàbbi nag dinaa tàbbi ci suukaru koor bi léegi. ndax nag dëgg-dëgg bu ko defee wàcc na ndax dëgg-dëgg gore gore lu jafe la mbay. ndax am na ñoo faloon dëgg-dëgg fal yu rëy te defuñu lii de waaye dëgg-dëgg ni mu baax nii léegi. bu yëkkatee somb toll nii indi ko ci suukaru koor dëgg-dëgg mbay. ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu saaga daal da ngay fay. wax ko ñaar saaga daal da ngay fay. bu dee suukar bekk yi am dafa génn rek moom lay la suukar bekk yi. dëgg-dëgg nee na la som bi suukar ma ne suukar bekk bu dee doñ yi grawul jarul nga parce que Marème moom la séddale ji. président doom may may gën. wax ko ah. ñaata la. kii du ay suukar bekk. wala du ay suukar mm-hmm. mm-hmm. dëgg-dëgg cinq millions la mbay. Mm-hmm. cinq millions yoo xam ne dëgg soxna su baax si lee. yëkkati na ko dëgg bëgg bëgg ko teg sa loxo bi mbay. ndax suukar koor rek mbay. kooku nag dëgg-dëgg bu ñu tàbbee ci lii wàcc nañu de. géwél a lay jox lu mu bëgg mbay. nañ ko pàccoo rek. jërëjëf maa ngi leen sant. mënut ñàkk de sant yàlla di sant yalla bi mu jëlee sama juróomi million delloo ma ko maa ngi ci sant yalla ndax adduna loo gis rek li daan manqué teranga la mbay gar bi xara tuuti dama naan toog affaire di manqué ma naan fu mu jiw fu mu jaar ku jël xaalis bi xii xaaxa daka gaa man mi mi yor yor nga cinq millions kon bi ma la dàqee léegi yor nga fi cinq millions mais président lii man maa ko liggéey bul ni ma président di ma ngama ngamal yor cinq millions président nga baal ma ki travailleur de day liggéey de non mais ça sa c'est moi qui l'ai travaillé sa sama salaire laa dajale. moom laa la indil nii. xam ne doo lu njublante xam na ko da lay tooñ ma jox lépp ci njub laa ko li nga ma jox lépp ci njub laa ko teg. léegi nag damaa bëggoon ah, nga wax ci ci samay dossier lan nga ma war a mën a fal. dëgg dëgg loo loo xool daal ci loo ko war a fal nag nag dëgg loo ma jox ba man naa duggaat gor mi fal ko dara rek mbay naa duggaat ci gouvernement bi rek man loo ma jox baax na je peux gérer toute autre question d'accord ça serait bien parce que xam naa léegi euh, gis nga Sénégal am na loxo moo ko yàq parce que bu ñu nekk fii di wax dafa am lu solo lu ëpp solo man sama nguur ñaar la da ngeen ko bàyyiwul xel man nguuru kaan ak suukar laa yor yow nag da nga tàmbali ñam ci suukar ba ci yàgg rek nga mos kaani yuuxu lan nga yuuxu looy yokku <laughs> non sérieusement non non dafal ndang Aly Ngouille ngi ñam na ci kaan na mut dégg nga turam Aly Ngouille dégg nga ko fen bi mu ñameek mi ngi muj muj ci gi noppi sa morom mi ngi ñam ci kaan gi noppi mi mi da nga mënta muñ ci kaan gi ba suukar ñëwaat mais président man j'ai non mais da ngay muñ ci kaan gi bëgguma kuy non mais mais président man j'ai été là pour vous hein man fii laa nekk lu ne def naa ko pour yow man j'ai été là pour vous du affaire gu giriyoon la man j' ai j' ai entendu n'importe quoi fii laa toog di accélérer la cadence. ñëpp a dégg nañ mi ngi ñëw nga jékki-jékki désaccélérer la cadence. xale def ko TikTok ah, xam nga lu ma leen bëgg a xamal. la ma xam lu leen bëgg a xamal pour ngeen xam da ngaa bëggoon falu. oui da nga bëgg a falu. oui bu ko falu ndaw nag fal ko dëgg-dëgg lu mag rek. lu mag ngeen bëgg. Ah. lu mag lañ bëgg a falu. falu ma la baax. falu ma la waay waay. dama leen ñibbi falu ma la. Garmi il est sérieux je le connais très bien. viens là. il a il a été mystiquement atteint de. Kaay viens là. il a il dëgg-dëgg kii gala jàpp na ko. Kaay rek jege si maa la jege si maa ngi la dégg. ngir yàlla rek jëlal ma sama xaalis bi ñu dem yow naa joxoon sama enveloppe. bii nag na bu baax de lijjantiwuma loolu. dëgg na ko dégg ci xale yi wax sa yaay day jur jaanu na ko baaxul de ma sama enveloppe ñu dem. mais dëgg-dëgg. yow lan koy nangoo. xanaa yónni wu ma la. yónni nga ma de. demal yaa ngi toog ma toog ma jox sa kanam tey nag dugg naa ni rubbadi yéy tey la ma doon xaar li naan ba torgay ma damoon damel dëgg-dëgg tey nag tey nag dëgg-dëgg damm naa damel président hmm. dëgg-dëgg dafa am changement ci diggante bi te rek laay déglu de dëgg ndax nag gar nalaw ma de ca la mag laa def ca la mag maa ngi lay déglu ma ni dëgg-dëgg lii somme bi mu la joxoon loolu loo am na ay xale yoo xam ne loo wax ci nga ni somme bi mu la jox waaw daf ko jaawale ci lan dëgg-dëgg xale yi nekk ci ci kii yi nu mu tudd. orphelinat orphelinat yi. Mm. dëgg-dëgg la ko la ko la ko waroon a jox. Mm-hmm. mbay dëgg-dëgg mu juum. dafa juum yow som bi ma la jox bëgg a jox. waaw damay laaj dafa juum. dafa juum ci som bi de. d'accord léegi yéen ñaar ku ci am fit ñëwal nga jël ko ci biir. xaalis baa ngi ñëw leen mi ngi ci biir kaa leen jël. maa ngi ci biir. gala jàpp na ko de Bah, j'ai été là et Premier ministre donc je le connais très bien moi je vais pas rester là à l'attendre ah non je vais pas rester là à l'attendre je vous signale man j'ai été Premier ministre donc man xam naa ce il est capable du ma fi toog di ko xaar ma rek mbay mimi mimi di ma xaar nag de ñoo ko ankay ay waay ay waay